danaa boobu monsieur le maire la ñëwuma ci woon ndax sànq émotion laa nekkoon quoi sama xol dafa sedd di na lii buñ ko créé ba nekk ay promoteur grâce à ma ko nëbb kenn toogal fii ndax mbuur bëri la ay mbër yi ñëw sama kër naa man père jëndal ñu billet te ma xam ne promoteur yi néew nañ torop ñëwal ma jàppale la su ma la jàppalee nga mën a xale yi fii nekk nekk di wax ne loolu ñu ngi koy rafetlu ñu ngi gërëm tam suñu sponsor yi fi nekk. mooy caisse de dépôt di CDC di gërëm municipal bi di gërëm transit transport Mbour Petite Côte xam nga ñu ngi siyaare bu aaroon sàmm. di wax ne lii daal bépp bu ñu ko defee monsieur le maire lañ ko ñu ngi ko siy sant nag di ci woo mu gën cee jàpp mu jëndal booy tam ay billets mbër bu fa dem li ma lay wax nag nga wax ne ko mu jàpp ci jënd billet yi billet làmb ji ndax làmb ji fees. ku fi woote lu nekk sama waa koñ day ñëw mais dafa mel ni nga bëgg a te amoo paas ku amul billet doo dem essence te ko am billet dem essence loolu daal maa am lu may wax di sant nag ñaar ñii ñaar ñi lenn rek laa ciy wax kii dama ko wutal adversaire ba mu sonn ñu bëri bañ Cheikh Diop mële xelam dem ci Mamour ne ma doo ko contacter ma ne ko non Mamour ak Siyaga ah xaaral kii bi ma ko woowee daf ne ma ndax avance bi mu sa poos <laughs> fu ma ne ko maamul mu ne ma barki Seydina Mohamed combat bi bu taxawul ci yow la loolu lenn rek lay joxe mooy gëm leen ne combat bu méttee méttee méttee lay doon mais yàlla jeex ak jàmm ak salaam que le meilleur gagne ñoom ñaar ñëpp suñuy problème yi. jërëjëf. Bouba lii nga mënal waa Mbour defal nga ko. dal nañ ci dugg ci bisimilah eggale ko ci alhamdulilah rabil alamin muy ñaari mbër yoo xam ne nii ku ci nekk xam na leen nag ci seen yarute kii lu ne def na ko ci làmb nee naa leen bi fi rek rek taxawee làmb di ñu tëgg mu ñëw jël poids lourd ba bu gees boo geesoo gis ci ginnaaw si àgga mu ñëw jël poids léger bi ba yàlla def tey mu fi bàyyi góor di dem Dakar bër bi demoo njaay la final gis nañ te liggéey bu baax ci làmb di fierté mbuur nga yàlla na yàlla def ay champion kii di xale boo xam ne dafa yaru lol moom bu joggé néna la jambour jambour ci dëkk bi yépp ya, jëm muy bis bo xam ni dañ ko tan jox leen ko santan dégg nga li buuba wax néna dafa wutal siyaaka adversaire ba son am ku ko ni do laaj santan mu laaj la nga ni ko ndax avance baa ngi ci sa poche lol gëm-gëm la wala na a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ginaaw ma sant yàlla julli ci yonent bi sant sama ñaari wajju di ñaanal sama papa yàlla xare ko àjjana di sant boobu assurance ndax ñun xàddi woon na ci làmboo mais moo ñu fay ñu bu bari nañu kaa leen bëri ay xale ngeen da ngeen cee toll kon dama koy ñaanal bu na bu yaram di ñaanal gars yi ne ci kaw ñëpp maa leen di nuyu di leen di nuyu mbóor mbóor sama commune bu ci làmb ji la gis ko fàllu wës genre gars yi ma ànd yëpp maa leen bëri sàmba xam nga maa ngi nuyu ñëpp di ziare ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di wax ne lii dafa metti boobu léegi ñëpp a ngi toog di ñu xaar pour man ak moom wax te defe naa ne kilo bu jàll daw ko dee kon dañuy ñaanal ñëpp jàmm man ak moom duñu ay noonu ay adversaire lañ doom na dimanche bi jeex bi jeex na mais day saf sàpp la ndax ay moom mooy lan xeex la wala moom bàyyi ma dara lépp xeex bëri lépp dara du dara du doy. Siyaaka. waa Père naa ma sant yàlla. julli si rajo bi di sant ñaari waajur bu baax a baax. mais Père balaa may sant kenn. damay sant ñi nga xamante ne ñoo may jàppale si entraînement yi contact yi. ku si mel ni ñoom Paul Manta. ma àndal ku si mel ni Rahman. Bas Ngel John maa ngi koy nuyu bu baax a baax. Salif maa ngi koy nuyu bu baax. di fay gi li ñi ma àndal maa ngi leen nuyu bu baax di nuyu sama waa koñ waa mbaa koñ mbaar mi bu baax a baax a baax di nuyu ñoom Assane ñoom Podé ñoom Tafa Faye ñoom Pakala mi ma àndal ñu ngi waaj bés yi maa ngi nuyu bu baax di oo doomu bol fa yëpp ne leen champion bu mag bi doomu mbuur bi moo am bés maa ngi leen di oo ñoom ñëpp ñu ñëw teew xam nga ñu dem stade ndànk defal gan gi bagage yëpp stade ba mu buuj ànd ñibbi si waat si barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba may damay santaat nga xamante nii père mooy Cheikh Issa da dama koy sant bu baax a baax a baax jàpp na si combat bi na si combat yi bu baax di nuyu sama mbokk éleveurs yi ñoom ñëpp jàpp nañ si combat bi barke Serigne Bamba di leen wax ñoom ñëpp nañ teew ñun ainsi dañuy commencé le groupement jëmale jour combat ba père. commencé ngeen ko nii. père ñëwal sama koñ. bomba bëggee boo paree nga ñëw reer man nag ab géwél laa yàpp laa bëgg de yàpp laay reere de sànq dafa am loo ma déy dañoo taxaw nga ne ma père man laa gan ma kii dama koy defal affaire ban affaire ma koy defal non mbaawul comme ma ko waxee sànq dañu ay noon ay adversaire lañu mais dama koy waxal benn affaire père kii billaahi dafa am bés su ko waxee xam na wax ki sama kër fa la yaakaar moo tax ma da nga am bes te mom waxu waxu bir la sama kër mom la yaakaar. luy loolu. loo fa yaakaar. dafa réer ak mbir te bëri wax rek. nga xamé wuñ ma wax. man tamit dama am dama woy commencé dama faté sante Cheikh isa ma ngoy sante bu baax jappal na ci combat bi. dem nañ fa mu may ñu xaliss bu bëri. dal nako yalla moy bu fa fan ak mais mom lu mu yaakaar nako ko rek man lima ma ma yaakaar ko ba làmb jël ñu ginaaw mom wol na boppam. man xale bu ndaw laa maa ko gën a wóolu sama bopp allez agriculture moom li mu xam na ko xam rek na seere boppam ay sa kër ak suma kër loolu lijjantiwu ma man li ma lijjanti arbitre génn suñu diggante man ak yow yaa ma man yaa ma ëppi bagage yaa ngi regroupement loolu day xaar asalaam mais dafa am nag lu ñu la xamee woon loxo yi ñu ngi neex ba léegi wala dinaa mu xamee damay dégg ñu bëri ñu ne làmb ji la si am billaahi wallaahi taalaahi nañ nañu laaj ñi may kontaagal ku kii lu mu indi da ko fay fekk lépp da ko fay fekk kii li ma yëkkati boo ko gën a diis barki Seydina Mouhamed kii ñemewul lu tar kii bu taree mu bàyyi kii tàppet la barki Serigne Bamba tàppet la booy wër tàppet tàppet a ngi nii jaaga day neex ne yow tàppet nga barki maam Seere Fall tàppet nga non yow tàppet nga yow yow amoo fit yow dafi tagal la ngay def man ak yow la comprendre nga man ak yow ñooy dugg ci déew ay dañuy lañ mais dañu war a neexal a neex ay gars yi waaye loolu sa waay nag daf laa ñeme de nee na tapet nga. père maa ngi nuyu Sida sax fàtte nuyu booy Sida maa ngi lay nuyu bu baax sama doom de. mais père kii dafa réeré mbir de déglu ma ma wax la kii nee na si yaakaar ragal la sëtu Giraan Coor bi ngay waxal la dama ne ndax sëtu Giraan Coor bi. ñu lay jàppale ngay may ndam ngay waxal de non dalal dalal dafal ndànk non arrière am non ndànk dañu waxtaan arrière am rek bu dul ba bu dul ba dinañ jegante ba mu neex billaahi wallaahi tallaahi bu ma la dalee benn dal nga bàyyi père père arrière al père arrière al Mamour arrière al wala da ngaa bëgg ñu bàyyi ko si diggu géew bi non non boo jee ñu may ma. lii affaire bu bëri la yéen daf leen ngeen toog rek bàyyi leen bëri ñu def seen show quoi. bu ji non woo woo ko man ngay def ndànk ndànk rek signature contrat lañ ne. gis nga li ngay gis nii kii bu la ragal laa xam nga gars yi ñoo fi bëri nii mu naan ragal laa mais barki Serigne Bamba bu arbitre na pire mooy li nga xam ne gaynde dëgg ngay jàkkaarloo. looy wax ay supporter. père xamal ñun dañuy signature. il faut ñu ànd père. père ndànk rek. tempo tempo. maa ngi wax sama waa koñ bu baax a baax. borom sere bi ñoom Fallou. maa ngi leen di nuyu Xaadim signature bi ay sere laa indi. Pa Moussa maa ngi leen di koñ ma njël. di woo waa golfu. di woo waa Tefes. di woo waa sama waa dëkk Marfa Bako ñoom ñëpp maa leen di si combat bi di woo waa Parmarin. ñooñu maa ngi leen di woo ñëw jàppale ma si combat bi bu baax a baax kan gi moom xam nga lu ma koy wax na ñëw suuru làmb ja xam nga di xëppoo di woo ma ñëw jàpp ma defal ko bagage dem ñibbi. sant looy wax say supporter. maa ngi jégalu bu baax li fi xew li mu nekk dañuy neexal rek lu yàgg loxo jóg samay supporter moom président xam nañu maay borom sama liggéey ñëpp dañuy jóg defes gi muy wax ni am naa fay supporter bi sama tool bi ñu bëggee gars yi mu àndal ñëpp ay noonu laa ko wax gars yi mu àndal ñëpp maa ngi bëggee bëri xam naa leen ñoom xam nañ ma la man ak moom la boo déggee mën a siyaasa dina fekk da ngaa la réeréer bi yow da nga Serigne Ba. et eh, Bouba. kaa dina photo de famille. Bouba yee. yow yaa